المقسم دي يلا المقسم دي يلا بينا خمي موي اجي جيل جاي جاو موي غور بينا خمي موي ديبالي واكون دي mooy boor bi nga xam ne mooy aji settantal ci mbiri jaam ñëpp mooy boor bi nga xam ne mooy yónni ay yonenteem yàlla julli ak salman nekk ci ñoom ak mboolem képp ku yàlla togg jëf ñoo ngi seere tey wóolu tey dëggal ne amul ben nguur bu ñuy ak jaamu jaamu ko mëna a jural njariñ ki ko jaamu nak gaa jaamu mëna a jur lor ko yàlla ya moom rek la amul kenn ku bokkam moom ak nguuram noo nah, ngi seede te wóolu tey dëggal ni sayyiduna muhammad ak jaamam la ndawam la mboolem ñi ram ay bàkkaar ëllëg yomal xiyaam moy ka ci jiitu yàlla jindi ak sëlmal nek ci moom noo ki ñam ak i yi nga xam ay way teey lañu highway lovely mbokk yi liñ bëgg fàttalente tey mooy benn xadiisu yonent yàlla muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi xadis ba noomaan ibnu bashir moo ko nettali muy xadis bu gudd ma nga tàmbalee ca inal xalaala bayinun wa inal xaraama bayinun وبينهما أمور مشتبهات وأي رسول الله ما قد على حديث بنتي إن في الجسد مضغة أن تبير يرم دوم آدم أو صوف وجنك صوف وخمي أبتر له تتر نكتي وأي تر له ببرد التغيير waaye mboolem secret yàlla yooyu yépp ci biir cër boobee la nekk moo tax rasulullah ne inna fil jasadi mudga am na ci biir aw yaram aw suuf suuf woowee ida salaxat salaxal jasadu kullu nee na suuf woowu nekk ci biir doomu aadama bu baaxee yaramu doomu aadama ji léppay baax maanaam cër yéppay baax waaye wa ida fasadat fasadal jasadu kullu waaye su woowee rasulullahi nee bu bonee bu yàqoo nee na mboolem cër yëpp yàqu nañ ñu ne su ko mooy wan mu ne ala wahiya al mooy xol wala fii sax dañ koy faral di wax boo waxee ñu ne xol rek a takk am solo la waaye am jàngate ci mbokki xol moomu ab cër la ci cëru doomu aadama waaye ku ne xam na ne bari na ay jëf yi doomu aadama di jëf yuñ sib mbaa yi xaraamal yoo xam ne xolo koy def mbokk yi xol rëy xolo koy def kañaan xolo koy def bañ sa mbokkum jullit xolo koy def soxare sa mbokkum jullit xolo koy def nëbbal nit ak mbañeel xolo koy def nëbbal nit ak ndoono xolo koy def moo tax xol mooy cër bi gën a takku jëmmi xol nag ni mu mel ci cëri doomu aadama dafa mel ni chauffeur bi mel ci oto bi chauffeur bi nga xam ne mooy conducteur bi mooy conduire oto bi oto bi du ne fii lañ may jëme moom day bàyyee boppam ak bi chauffeur bi di ko jëme fu ñu ko sopp ñeneen ci biir oto bi it dañuy toog rek di déglu chauffeur bi mu yor volant bi fu mu jëmee oto bi oto bi jëm dama ne cër ma cër bi ñuy wax xol mi ngi mel ci doomu aadama ni chauffeur bi mel ci oto bi chauffeur bi mooy conduire oto bi mooy conduire ñi ne ci biir oto bépp waaye xol doomu aadama yi mooy conduire doomu aadama waaye mooy conduire mboolem ay cëram moo tax Cheikhul Xadim nee na alxalbu kal maliki fil a'daa'i mahma yamil tamit bila turaay Cheikhul Xadim nee xol dafa mel ni que buur ci cër dafa mel ni buur ci cër yi fu mu jàng jëm moom xol fa la cër yépp di jàng jëm mu ne nag wa in turid islaaha al awsaali maa atabir al islaaha lil qalbi maa Cheikhul Xadim nee na bu fekkee da nga bëgg say cër di def lu baax nee na fexeel ba yéwénal xol bi xol bi di yéene lu baax di bëggal nit ñi lu baax di wax ci nit ñi lu baax fexeel ba xol bi sopp ñépp ñu yàlla bind ci kaw suuf bu boobaa day yombalal say cër ñuy mën a def lu baax waaye li nekk ci biir xol bi loolu rek lay wàll cër yi su ko defee cër yi loolu rek la ñuy def moo tax Cheikhul Khadim nee na wa in turid islahal isaali is wa in turid islahal awsaali maa fa'tabiril islaha lil qalbi maa boo bëggee say cër yéwén di def lu baax fexeel ba yéwénal sa xol xol bi di def lu baax fu mu toll su ko defee cër yépp a yëwén mbokk yi ñun jullit ñi war nañu góor góorlu bu baax ci defaraat suñuy xol réew mi booy seetlu yéenante musiba gi waxante lu bon bi añaanante gi musiba dal ci sa mbokkum jullit nga di ko ndokk di ngéeji woo musiba ca sax bu mënoon a ëpp lii na ko ëpp bu nit nekk ci tol tol ngeen bu mu ci génn mbokk yi ñun suñu réew mi lii lañ fiy dund te nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans lañ juróom ñeent fukk ak juróom ci téeméer boo wàññi ñu ne ay jullit lañ waaye nun de yéeneetuñ lu baax yéeneentuñ lu baax ci suñu biir kenn séedaleetul moroomam lu baax mbokk yi bu fekkee ne yàqute xol yi yegg na ci sa moroomam jullit ni yow aw dig dox seen diggante nga wut jigéen ne ko toppal ma diw mii fexeel ba amal ma ci moom ay audio mbaa nga fexe ci ba am ci moom ay vidéo ngir ma yàq am dundam loolu dañuy dund ci réew mi de fay jigéen ni ko toppal ma nit mbaa nga mere nit dem ci ku yor site internet am nga seet ku ñaaw ñaawul lammiñ ci askan bi te mën a wax lu bon nga fay ko alal fay borom site internet alal jëndal ko plateau mu dem ci plateau ba xassal di bo tax léeg-léeg da nga gis ben journaliste bo xamne day tok inviter nit muy wax ci morom dom morom su borom diko xass diko di diko wax lu ñaaw lu nek nga gis mom mi nga xamne mo inviter mom mom journaliste bi day tok rek ne xaj di xol waa ji muy wax ndax lan amul sago ci limi wax ndax mom mo d'accord ñu fay ko ba noppi door ñu waye waaye bu fekkoon yow ya ko bëgg éviter laaj ko xaratam dong bu ñëwé tok bu fa bëggé nekké sa moromu su gorom diko xass nga ne ko dédé li ko taxutul mo wala mbir sangam ak mbir sangam mi xew la bëggoon ñu waxtaan ci waye diw neeku fi kon duma nang nga diko tuddi ci sama plateau waye doko sañ ndax li tax doko sañ ginaaw nit a ñëw ne la dama bëgg attaquer diw te mënuma ko attaquer man personnellement léegi diw la bëgg mu attaquer ko kooku it donc di koo xam amul métier ba noppi don ko ñaawum la làmmiñ nga jox ko avance ba noppi fay borom plateau bi mbokk yi li mooy defam ci réew bi mbokk yi bokk na ci yooyu ci yàqut ak jikko yi ak yàqut ak xol yi nit ñi yegg nañ ci gis ñaar ñoo xamne ne dañoo jàppante nga gis ñi bi joko xulo kenn ki di borom alal ki di borom alal nga bëgg ci alalam dafa mëna di def bàcc kee muy xulool nga dem seet te ñu ko xam ñum daa àndal démb ak barki démb nga ne leen damaa bëgg ngeen wax ma ci démbam ku xam ci moom lu ñaaw ñëwal wax ma lu ñaaw luñ xam ci moom buñ la ko waxee ba nag nga ñëw ci diw ne ko ah sa waa jii de am naa ay information ci moom mu ne la yan information nga ne ko xam naa diw ak diw ak diw ñoo ko xam wax nañ ma ci moom nangam wax nañ ma ci moom nangam nee nañ ko mel nii la ku mel nii la jaar na fi jaar na fi jaar na fi mu ne la ha ah, nga ne ko waaw mu fay la xaalis dem wutal la site euh, site internet jëndal la plateau nga dem toog la nga demoon gëstu ji ko ci moom ci lu ñaaw nga ñëw nettali ko ko ci plateau bi ngir lan deram yàqu ba kenn du ko xool moo tax bis bu ngeen gis nit di wax bam yag ngeen deg bu nek kamaj fekk ni mbir la ndax boole nañ ko nit mu fexé fexé ci ba am ci mom lo xamni ne bëggul loola siiw motax tax fi mu ne nii fi ñu toll da ngay gis ku yoru vidéo jaay ko ay million ndax da ngay lëkkaloo gone gu jigen ne ko diw la bëgg nga topal mako ba fa kastal mako mu top diw mo top diw mo ba fa kastal ko bu ko fa kastalé bam mu daanu mu filmé ko ñëw na la amna amna amna amna diw amna video diw nga ne ko won mako won won wan la ko muy video bu ñaaw bo xamne ne bëri wuri ca teg mu ne la koy jaay nga ne ko fukki million la koy jaay mu dal la koy fay kas nga jël video bu jox diw moomu du xey xey lu dañ ko koy sanni ci telephone mu liir ñu ko ko wax ki yaw léegi dama bëgg gëtee salam yi bu la dégg ci bokki réew mi fii la ci ñàkkante dal

ndax ki yéene nit kaso yéene ko lalub hôpital mbokk yi kooka bu faatoo boo mënta wax alhamdulilah ci kaw it wax ci sa biir xol ala kulli xal ndax képp ku yéene nit kaso yéene ko lalub hôpital rek yéene nga ko def moo tax buñ ne laa diw nga kaso nga ne yàlla fa yàgg ñu ne la ma nga hôpital nga ne alham nga ne nga ne yàlla na dee buñ ne laa dee it alhamdulilah alhamdulilah rek nga ci dem mbokk yi fii la xol toll moo tax réew mi ñuy wax ne quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans benn borom xam-xam bu wax ne mooy combien de nafiq leg nga genn ci ñaar nafiq gis nga 95 yoy ñuy wax bo ci génnee la ci ay nafiq du to am 5 de musulman mënutoo ko am ndax yàqatuñ jikko mbokk yi ak njëlit du lu ñuy wax ci lamiñ lu ñuy wax ci lamiñ la waye lu ñuy jëf ci cër la mbokk yi yonent yalla muhammad neena al Muslim, man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi rasulullah nee na ab jullit dëgg mooy koo xam ne fexe na ba ay mbokki jullitam mucc ci ay làmmiñam mucc ci ay loxoom bépp jullit boo xam ne sa moromi jullit yi mënuñoo mucc ci sa ay làmmiñ mënuñoo mucc ci sa ay loxo mbokk yi foofu am jullit rek aw tura fa nekk waaye am jullit amut fa mbokk yi rasulullah nee al muminu man amanahu nnaasu ala amwalihim wa aradihim rasulullah nee na aji gëm dëgg-dëgg mooy koo xam ne day fexe ba jullit ñépp mucc seeni al mucc ci moom seeni deret mucc ci moom mbokk yi yàqante yàqante der gi ci réew mi bari na lool mbokk yi ab jullit bu fekkee ne yéene na mbokkum jullitam lum yéene wut boppam saa soo déggee nit wax ak nit ba ne ko li ma yéene sama bopp laa la yéene mooy lu baax rek laa la yéene ndax nit du yéene bopp mukk musiba doomu aadama du yéene musiba bopp mukk yiw rek la yéene boppam moo tax ku ne nit li ma yéene sama bopp laa la yéene te loolu di dëgg mooy lu baax rek la la waaye bépp jullit bu mu mën a doon boo xam ne yaa ngi seen sa mbokkum jullit am ci moom jenn yéene ju te ak yéene ji nga am ci sa bopp mbokk yi yow de xaw ma kan waaye yow doonatoo ab jullit mukk ci àdduna ah yonent yàlla muhammad nee na fa walladi nafsu muhammadin bi yadihi rasulullahi daf koo giñ de waaye xanaa bu te giñu ko mu doy waaye mu giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkanang ci loxoom muy yàlla fa walladi nafsu muhammadin bi yadihi laa yuminu ahadukum حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير من أمر كان تيين كو خامني دا نغم يالا غم كو مات لودول لين لي ييري بابام تي يو داف كو يين اي بوك جولتا تا بوك نون يينه تين دو يينه تين كيو باخ تين يينه تو مروم لو باخ لاي كين كو تي نيك تي نون ياكام تي nga خام اب سفان تي سا بوروم با فيلي باندي كو وري سفان با ادنا غير اب درم ياكو bokku na ci yakute xol yi bokki ray gu bari gi ci rew ray gu bari gi ci rew mi mbokk yi mi ñu nekk nit ñi dañuy ray seen morom yi nit ba noppi mel kuy ray ay weñ mbokk yi bakkanu doomu aadama ñu mu foore ba ko suñ borom di bind tàggu ak coono ba ca yàlla daj lépp bu fekkoon kuy sonn ba indi ko ci kaw suuf te suñ borom bind lu mu lo seen mu bind ko ci kaw suuf rek daf ko bëgg motax mu bind ko te ñim bind te bëgg leen ñëpp doomu adama ci raw nga jàkkaarloog sa borom julit muy dund ngay dund joxo sa bop sa dund momit joxo ko dund nga jël ak dund ba noppi tok fi di dund te da ngay gis nit ku jàkkaarloog borom nitam dor ko bal mu faat mbaa mu ko jasi mu faat mbaa mu jam ko paaka mu faatu ba pare mom mi ray bakkan bi ma ngay dem di yey mbokam di yey gerteem di nan kafem di aji kareer du ko sax yigal yaramam xala lol mooy xol bu de du tolli ni do ma aadama nga jël ko ba nopi di lek kanaan mel ni dara xewut nga melni ku fekk weñ wi naaw rek nga raj te mbokk borom neen man qatala nafsan bi khayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka annama qatala nas jamian suñu borom neen kep ko xamne fat nga ben bakkan ba nga yak alal ci kaw suuf neena dafa melni da nga ray nit ñi ci kaw suuf ñep ben bakkan ndax lan bakkan bi nga ray dafa bari bakkan yu aju won ci mom nga ray bakkan bob kon dafa melni ni bakkan yu bari nga ray bakkan bobu nga ray amna yeneen bakkan yu warona genné wat ci mom ño xamni ci mom lañu warona juddo nga ray bakkan bobé mo tax suñu borom ni man qatala nafsan bi xeyri nafsin aw fasadin fil ard fa ka annama qatala nas jamian ko xamni ray nga bakkan dafa melni ni da nga ray ñi ci kaw suuf ñep ndax ñi aju won ci ñoom waye waman ahyaa fa ka annama ahya naasi jamia képp koo xam ne nga bakkan eh, dundal nga ab bakkan sove nga bakkan manam fek nga bakkan bu narono a nga sove bakkan ba bam mu dund suñ borom neena dafa melni da nga fek wa kaw suuf ñëpp seen bakkan nekkon ci dans ngir nga sove len ñepp ñepp ñëpp bañ dund ndax mbolo mi topal ci ginaaw ñepp da nga len sove waale mbokk yi ñun ñuy rayante ci suñu biir te ku ray sa morom ba noppi da ngay melni weñ nga ray do ko sax yëgal sa yaram di lek ka nan di xawaat ka nga rey moom tëdd bat faq waaye mbokk yi faat bakkanu doomu adama buy dund ñak xam la ci yalla digge motax doomu adama diko def ba noppi di teul di nalaw mbokk yi sa waras aduna si ñuy dund nga xam ne moom la ñuy luñ togg rek mom lañ koy togg dama ne sa waras aduna si sax kuñ ko dik nga wara a dama jëlé la sa waras yalla mbokk yi te mbokk yi sa waras aduna si rasulullah neena na seen sawara si ngeen di jëfandikoo aw fer ñent na suñ borom jël ca faras sawara si yobal xeet benn fer ñent neena na ko jëlee daf koo dóor ci montagne fer ñent wa xar juróom-ñaar fukki junni xar juróom-ñaar fukki junni xar yooye suñ borom jël ca wenn xarit tabal ko ci juróom-ñaar fukki géej bam sedd mu door koo génne jox ko waa suuf ñu door ko ñu door ko mën a jëfandikoo mbokk yi ndax di ngeen wax ferñent ci sawaras jahannama rasulullahi nee na moom la yàlla jël door ko ci montagne mu def juróom-ñaar fukk jini ferñent juróom-ñaar fukk junniy ferñent yooyu mu tànn ca benn dugal ko ci juróom-ñaar fukk jini géej bam sedd guy mu door koo génne jox ñu moo ñu ñun ku safara jëm ku safara jëm ci sa kaw nga nga nga te mu ne day yow mi faat bakkan te tey ko suñ borom nee na wa man qatala wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaa'uhu jahannam sawara si gën a tàng ci mbooleem sawara yi te muy jahannam képp ku rey bakkan tey ko suñ borom nee na foofa laa la jëmee fa jazaa'uhu jahannam waaye nag xaalidan fiiha suñ borom nee na du yem ci dem sawara waaye dafay sax duutu fa jóg ndax mbokk yi sawara am na ñoo xam ne bu ñu fa demee duñ fa sax ndax koo xam ne dafa dem sawara te bàkkaara ko fa yóbbu kooko buñ ko dugalee ci biir sawara si bu ay bàkkaaram jeexee dañ koy génn yóbbu ko ca déggu kaw sara mu naan fa sangu fa ñu ko aljanna waaye ki rey nit moom bu xasee dugg biir sawara duut fa jóg waaye suñ borom nee na du ma yem ci tàbbal ko rek biir sawara waaye dama koy booleeg yeneen sanction yoo xam ne moom laa koy sanctionné foofu ci biir sawara si waxadiballahu alayhi suñ borom nee na dama koy tàbbal sawara ba pare bo koog sama mer sama mer merum yalla nga xamne xajut ci jàmm suñu borom ne dama koy sawara ba pare boore koog sama mer wala annahu waye ma rëbb ko man yalla ci bi sawara sosé waye wa wa wa azaban muhina duma yem ci mbugulum sawara bi waye damay wut yenen xeyti mbugal yo xam bokku bokkuñoo tangor sawara yi ma di ko ko mbugale ci bir sawara yi mu boole nak sawara tangor sawara yi merum yalla ci bir sawara sa rebus yalla rebum yalla ci bir sawara sa booleeg mëneen mbugal moo xam ne bokkut tangor sawara ci bir sawara mbokk yi li nit atana mo ne day kep ku fat bakkanu doomu adama kep ku fat bakkanu doomu adama li mo le moy la lay xaar ci karam yalla mbokk yi xol len ñun li faatu ñi bala di rey ñii jaasee leen di rey ñii ray def dañ koy def ba nopi dem te di nelaw ñu dara xewu te mbokk yi kep ku ray nit baye bo nga xamne amul benn yonent bo xamne man la ram ci kanam yalla tabaraka taala mbokk yi ñu bindon di ëpp na li way ñu la suñu kat ndax li lañ wax bi may kaddu genn kaddu rek lañu la muy di ñaanal suñu mbokk julit wala bok suñu mbokk ci julit suñu mbokkum julit ni moy cheikh bara ndjay ñoo bokk dëkk fi ci touba moy suñu mbokkum julit di suñu mbokkum talib ku ne xam na ne jamono yépp mi ngi ci ay tolof tolof du moom rek moog yeneen mbokki julitam yàlla yàlla saafara leen yàlla yàlla yëkkati leen yàlla yàlla fekk seen jël te delloo leen ak seen sago delloo si leen ci société bi ñu nekk fi taram njariñ la ci doon jariñ waaye rek liñ leen di dénk mooy dañu lekk nañu naan te muñ te xam ne nattu yàlla dal ci seen kaw te amul benn natt buy dal ci kaw jaam lu ne natt ba am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem natt bi yàlla la rek nañ ko muñ yàgg yàgg dana jeex nañ muñ natt bi suñ borom lañ ko nattoo kenn ku ci nekk ci ñoom lu jiitu ngay ñëw jamono yàlla tudd na ne lii da nga ko traversé ci sa dund nañ ko muñ muñin wu rafet sayyiduna muhammad ba muy door a woote ci makkatal mukarrama taalibe yi nga xam ne ñoo ko mu njëkk wuyu bokk na ci amar ibnu yasir bokk na ci yaayam sumayya bokku na ci ammar kérok dañu ñew yéfa yi makkay teural leen di leen mbugal mbugal ma metti lool rasulullahi amul benn pexe ci mbugal mi ñuy mbugal ay talibam ndax ñi leen mbugal ñoo leen ëpp doole te yonent yàlla muhammad mënu ci dara mu tiim leen ñu di leen mbugal mbugal mu metti ana lu leen wax sabran ala yasir fa inna ma'idakumul janna muñ leen yeen ñun yasir mbugal mi metti na lool waaye bu ngeen ci faato yi di ñëpp aljana ngeen dem xanaa li mo ñak tax te mo ne day ay taalibeem lañ doon def noonu moom yonent yàlla muhammad waaye amu ci woon menn pexe ndax ña ko doon def ñoo ko ëpp doole waaye mu ne leen muñ leen bu ngeen ci génnee àdduna it àjjana rek la leen yàlla di fay te ñoom ñi leen mbugal it sawara la leen yàlla di fay kon yéen ñooñu nga xam ne yéen a ngi ci lalu hôpital yi bu yàlla delloo seen sago lekk leen naan leen te muñ loo yàlla seen natt bi fas bir sabran jamilan moom lañ waxoon yonent yàlla muhammad mbugal mii la say noon di mbugal metti na lool waaye muñ ko lu yàgg-yàgg day jeex te innama yoo fa saabiroon ajroo bi xayri hisaabin képp ku muñ da nga muñ muñ leen nattu yàlla yàlla leen yàlla génne ci natt boobu ñu nekk yàlla leen yàlla delloo seen sago dafa leen wér-gu-yaram te delloo si leen ci société bi yaxfirullahu lii wa lakum wa lisaanil muslimin amin